asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan ñëw fi nga xam si moom mooy géejawaay macha allah di wax nag baal naa ñëpp àq di baalu ñëpp àq leen wax déwénati eh, Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm dolli sutura dolli xéewal yi macha allah di nuyu nag kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp eh, di nuyu président Macky Sall waaye di nuyu opposition bi yëpp macha allah yaakaar naa opposition boo tuddee Idriss Seck tudd Ousmane Sonko dañu yóbbaale ñi def ñëpp macha allah di wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar réew mi sunu réew nañ koy waxtaanee macha allah di ñaan suñu borom def jàmm doole sutura yokk xéewal yu baax a baax waaye yaakaar naa tey ki ñu jàkkaarloo nii macha allah muy nag Mass is back ndax ginnaaw pause bi yàgg na waaye tey lu yëngatu nekk la ko yëngala këpp doole yaakaar naa le promoteur numéro de l'arène macha allah comme ni ko Fallou Ndiaye nekkee le promoteur numéro un macha allah di nag promoteur yëpp rek yëpp cat ba cat ah bëri naa ci ay samay mag samay papa samay ñëpp rek ménager nuyu naa ñëpp waaw ménager yi moom ñëpp samay papa samay mag samay xarit macha allah ah nuyu promoteur yëpp macha allah waaye yaakaar naa Ouzin ah borom mercredi macha allah Ouzin production ñu wax la déwénati baal nañ la àq baal ñu yàlla na yàlla boole baa ndax yow mën na yow yàgg nañu sama diggante yow xeex bu du jeex la macha allah kenn mënu ko arrangé nag waaw Mass maa ngi lay ziar di ziar waa SBT Média yëpp nuyu axlu làmb ñëpp di nuyu mbokk internet yëpp di leen wax déwénati leen baal leen màq baal naa leen yàlla yàlla boole baal parce que àq dafa sew mën nga koo amee nit ki te doo ko yëg euh, bu ma amee lu ma wax ma lu mu gaañ maa ngi ko ciy jégalu lu baax a baax di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ñu fekkee déwén te buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal tamit yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di sant ñëpp. macha allah fi ñu koy tàmbalee rek comme ginnaaw bi mu baalo ak ñëpp char ñëpp macha allah fi ñu koy tàmbalee mooy euh, saison bi ñu nekk nii en cours Ouzin production mi ngi ci ñaari journée. waaw Ouzin production mi ngi ci six journée yoo xamante ni organiser nañ ko six dañ préparer deux journées yoo xamante ni dañ ko waroon a def far affaire bi am blocage ba léegi nii nag ñu ngi toog di xaar. mais suy journée moom yàlla dogal na ni organiser nañ ko. mais bi saison amagul sax ñaar nga wax mën a def ba am six journée Ouzin boo jaar gars waaw mais xam nga <laughs> six journée moom li ko indi mooy euh, suñu programme bi ñu indi woon muy trois cent lutteurs yi muy euh, ci lañ bokk moom nañu bi ñu defee suñu premier journée mois de novembre ci ñu toogoon xalaat ne pourquoi pas mënuñu tëgg mercredi yi nga xamante ni bon gars yi laaluñu ko. di ñu waxtaanee loolu ñu jaar ci Bira Sène waxtaan ak moom bind ko lettre bi demandé ko loolu mu accordé nañu ko fa la ñuy jaaree sax di ko nuyu moom di ko ziar ak équipe am yëpp ay Maysa Ndiaye ñoom Ñambi Diop Max Manga képp ñoom ñëpp daal équipe bi yëpp fa la ñuy jaaree di leen nuyu di leen wax déwénati leen leen baal ak bu baax vraiment président Bira Sène accordé ñu loolu ñu fa ñu tëgg ñu ne dañuy def chaque mois ñu organiser benn crédit ñu ànd ceeg staff yi ñu toog chaque mois ñu organiser benn mercredi ñu defagum cinq mercredi yàlla mi nga xamante nag mooy maye ñu yëpp ñu organiser ko ci jàmm ba alhamdulilah rabbil alamin daal loolu daal moo indi woon mercredi yi. kon su ma la déggoo parce que léegi bëri la nga 120 euh, lutteurs. waaw 120 lutteurs bëree bëri nañ leen ñoom bëri nañ ba pare loolu nag ci ndimbalu suñu borom la dañoo amoon yéene bi rek yàlla mottali ko waaw. mi ngi noonu ah mais mais si journée bi yaakaar naa diggante Thiandoum 2 ak Moustique làmb jooju doy na waar de parrain bi ñànk la mais keroog ambiance mu fa gis ak xeetu kii mais mais cooli lan la parce que Ousseyn léegi cooli dafa bëri de. waa sant yàlla rek fa jaaree di gërëm ñaari mbër yëpp muy Moustique ak euh, Thiandoum ku ci nekk li nga war a def def nga ko jël nga làmb ji def ko sa yëfi bopp vraiment. mais ñu dem ba ci làmb ji des ay ay ay minutes yu ndaw cat dugg ci santeek suñu borom bu baax li ko indi nag bon du ci ñaari mbëri du ci kenn benn mbër bi lañ daan dóor benn àndandoom koo xamante ni nee na depuis ñu taxawal combat ba ñoom ñaar ñooy ànd di toppatoo seeni komba policiers yi di ko dóor dóor yi métti mënu ko muñ mu laxasu ko laxasu xarit bi gars yi dóor ko ba mu si jaaree fa am blessure g xool ko médecin bi ne mënul bëre bon ñu xam ne loolu suñu borom dogal ñu ñu nangu ko di jaaree foofu nag bon di ko demandel de grâce parce que vraiment musique borom kër la kilifa la daaw laa ko tëggaloon combat le 14 mai 2022 ma tëggalaat ko ren la le 17 mai 2023 un an ci boroom kër la nga ko jox as néew mu koy préparé ak njabootam tey aj nañ ko benn sanction boo xamante ni fa laa jaaree di demander CNG pour ñu teggi sanction bi nu mu gën a oyofee loolu dama leen koy ñaan man en tant que promoteur bi ko tëggoon maa ngi koy lancé Bira Sène ak équipe am yëpp te xam ni man bi ma demee fekk musi këram xam naa ni soutien de famille la borom soxna la responsable la buñ ko ajee ne du bëre te nit yaakaaru lu làmb erreur mënu ñàkk ci nit c'est la première fois ci li ma jot dégg musik def lii man Ouzin mbër mi indi mbër mi indi violent man du mën a tëggal combat kooku moom am naa ci fulla googu parce que man sama lépp ci jàmm la sama lépp ci maanaam day sedd daal parrain bi ñànk keroog ñu gis stade bi côté xeetu ambiance boo xam ne bi làmb di làmb ba tey musuñ musuñ ko gis ci stade waaw loolu sant yàlla rek ñànk fa laa jaaree vraiment di ko remercier parce que date bi diggante bi ma ko waxee làmb ji gàtt na gàtt goo xamante ni mais li mu def arène nationale c'est la première fois parce que keroog bi ma ko waxee def na ma Ousin dinaa fexe ba cent faux dinañ takk ñëw stade te noonu na ko defee waxuma dara sax mais def caravane dox diggante géejawaay ba arène nationale ñëw sagal ma sigil ñànk aw ma fayam fa laay jaare toujours di wax faux lions yi na leen état Sénégal respecté ñooñu ñooy bëggeel nit ñi parce que ñànk li tax mu nekk choix bi da ngay tëggal ay mbër combat ñu naan la dama woo ñànk pour ma simbal ma am recette recette bi laa bëgg a dajale jënd samay billet di dem ñànk da ngay ñëw mu ne la mbër ne dama koy tëggal moom ak samay fan club pour dajale jeunesse bi pour ñu toog ñu waxtaan xool nu ñu mën a xoolee li liy indi ci réew mi jàmm kuy def loolu nekk nit di takk li nga xamante ni mooy ay karaw di di di def ay démonstration art yoo xamante ni ñooñu ministre de la tourisme ñooñu war nañ ak culture war nañ leen mën a taxawu jeunesse ñëpp war nañ leen mën a jàppale man foofu laay waxee tey ñànk dafa war a nekk quelqu'un dans le pays fii rawatina sax fii ci géejawaay di wax leader géejawaay nañ ko jox cër nañ ko jox bopp te dimbali ko ñoo ñoo jara dimbali tey neen ñànk buy simb fii secteur bi mais xale yëpp duñ dem fenn ñëpp dañuy ñëw dagg seen billet toog fépp parce que man yenn saa yi ma jékki-jékki dem fenn gis xale yi di daw dem lan la ñu ne ñànk mooy simb fi mais loolu tey loolu dafa bokk ci ci ci ci aar. mais mais Ouzin doo ko mën a mais du ñu ñu def ko président des folions euh, national ka waaw loolu tamit vraiment keroog bi ma ñëwee ma gis képp kuy folion vraiment nga ñëw def say jees ne def sa sañ sañse ñëw toog wax. maanaam jëmmal ko bés bi te koo ci gis xam lu mu la wax premier édition bi daf ñoo bett ba déwén ma bëgg nag balaa déwén képp kuy leader ci géejawaay képp kuy responsable ministre bëgg naa nga recevoir faux lions yi nga waxtaan ak ñoom yombalal leen li ñuy kaas. voilà yombalal leen li ñuy kaas xam nga li ñuy kaas lan la seen autorisation yi ñuy tëggee seen i simb ñu yombalal leen ko bañ leen bañ leen teg fitna ci. maanaam aar bi ñuy def loolu rek laa leen di ñaanal man di ñaanal ñànk bu baax a baax a baax li wax man dama xool seen na si ñànk trop te lii ñëw ci kanam mooy dàqali incha allah. waaye sama séeréer ndeysaan dara ko wet ga dadaa macha allah laal gis ne bu baax bu nu muut moom wax naa ne moom boolewul daraa ko wax ku ko yab da nga ko fekk muy nelaw mais Ouzin ñu ñëw ci ci combat bi nga jëmoon muy la 14 euh, ci diggante yaakaar naa kii la woon euh, nu mu tuddati euh, Saawaalo ak ak kii ak boy ak booy. ak Boy Sine bu bu bu Rock Énergie mu nekkoon combat boo xam ne amateur yëpp dañu ko doon xaar waaye bu ci jógee woon ñi nga waroon dem ci diggante ki nga xam ne moom mooy mooy Moustique 2 ak ki nga xam ne moom mooy Oligans mu nekk ñaari combat yoo xam ne da nga koo tegale waroon koo euh, def avant tabaski bi ñu jekki-jekk ak coow yi am ak mënu ñu reporté combat yi surtout bi nga waroon tëgg la 14 ñu jekki-jekk ñu ne comme làmb ji la 15 lañ wax ne arrêt bi fi la yem à la la 16 ba jëm jusqu'à donc mën nañ ci tëgg nga demaat dabu le 25 bi lan moo tax nga bi nga ñàkkee le 14 bi nga dem dabul le 25 te xam ne tabaski bi jege na ak yu mu noonu lan moo tax defoon yeneen promoteurs yi xaar dem wuti yeneen date yu sori préparé lan waaw xam nga toujours dañu nekkoon ci programme bi bi ñu jógee ci mais dañu waroon dem ci juin muy le 14 juin diggante Boy Sine ak Saawaalo ñu ne bu ñu jógee ci juin dañuy dem ci le 20 juillet ci diggante Oligans ak euh, Moustique bu ñu jógee ci juillet ñu tëjee suñu saison août. ñuy xool fils de Sadio numéro un ñu koy def bu wutal ko adversaire far yàlla bi ñu ñëwee ñiy préparé suñu quatorze bi ba régulariser ba fay lépp ñu ñëw xamal nañu nekkat dafa am décret bu génn boo xamante ni ministre des na jóge di première au quinze activité du am làmb bon bi ñu ma ko waxee ma ne kon baax na président vraiment ne ma ah nañ bàyyi ba ci kanam mën na am seen journée bi mën na ci bañ a bokk mooy journée le dix ak le onze ak le 14 bon bi ñu ba ci le 8 vraiment président woo ma ne ma journée seen sa journée bi dafa bokk au premier au 15 bëggoon nañ def lu tout nag pour làmb am muy làmb Fallou Ndiaye ak euh, Ibrahima Diop. jàmbaar ah. jàmbaar waaw onze waaw ñu ne mënoon na bon loolu mënatul nekk ma ne d'accord bo lu état bi wax la CNG bi wax ñu ko ñu d'accord ñu toog ba le 15 de 16 ma ñëwaat g vraiment ne leen kat comme li du première au quinze dama ko bëgg a yóbbu vingt cinq muy 4 jours avant tabaski ma 3 jours. falaa jaare sax di di remercier waale mbër ñu ne ma buñ ko bëree ñu jot seen reliquat tabaskee ko ma gis ñàmbe mu ne ma ah bindal rek parce que ba léegi ni amuguñ benn nouvelle ci affaire yi wax dëgg fa yàlla ma bind euh, demande mu ne ma bon comme nit ñuy expliqué rek préparé na mbëri préparé lu ci mënti après nañ leen def siñ ok bon bi ñu demee ba affaire bi jege si bon ñu ne ñu. waaw ñu ne ñu ñëw na le 17 amul le 18 amul. le 21 amul bëgg fàllu moom it bëgg tëgg vingt 24 amul man ma tëgg le 25 amul mu nekk ñaari report biñ ma ko waxee ma ne leen comme noonu na demee ok situation dëkk bi nag. ak li tax état bi arrêté ko ñoom ñoo ko xam mais yenn saa yi ñun ñun ñun promoteurs yi tëgg la ne métti na gaa mais il faut tam ñuy demee yenn saa yi suñu xel demee situation nu muy demee parce que dëkk bi dafa nekk ci benn moment boo xamante ni dañ ne organiser komba nekkul loo xamante ni lu wóor la ci moment bi ñu toll mais bu ñu arrêté loo combat yi ba pare ah am na loo xamante ne waraloon na ak ñun. man du ma ne CNG CNG arrêté wul combat yi de ministère ñoo ko arrêté état bi bi ñu ko arrêté waroon na mën a taxaw ñu ne lii kat ñoo leen ko dédommagé. parce que fay ngeen seen ay droit fay frais d'organisation fay sécurité fay lépp ba desul lu ma ngeen xaar. lu dul organisé. bés bu ñëw suur si. Mhm. kon loolu état bi war na mën a yëkkati. waaw métti waaw parce que li ñu war a def yëpp def nañ ko mbër yëpp ñu ngi ak seen avance def sa publicité préparé sa lépp. kon tey état bi joxe décret ne yóbbu ko CNG ne bu ñu arrêté arrêté lamb yi ñu war nañoo xool ñaata promoteur ñoo organisé ci moment boobu ñu ne leen kat lii dañ leen ko dédommagé bu ñu ko dédommagé bu amee dina baax ñun tamit ñu dédommagé waat mbër yi parce que mbër yi tamit ku si nekk waajoon nga ba pare tey maa ngi war a voilà bu loolu amee ñun dañu war a jëlaat dédommagé waat mbër yi na ñooy loolu daal mooy li nga xamante ni bon man moom laa daan moom laa daan xalaat ci affaire bi noonu la demee daal ba léegi nag ñu ngi toog di xaar am nañ journée yoo xamante ni ñu ngi koy waaj ñu ngi waajaat pour organiser ko le 19 bu bu yàlla dogalee bu yàlla dogalee le 19 bi mu sotti ah xayrul parce que journée le 14 bi moom la ñu war a indiwaat le 19. le vingt 26 bi ba tey ñi ngi maintenir le 26 bi waxaguñu dara nag xam naa fii ak ñu reprendre ci après les fêtes dinañ ñu wax ci côté yooyu nu mu fa demee waaw. mais kon daal yéen promoteurs yi lu mi lii ngeen ko ne dund quand même tëgg joxe seen xaalis def lépp ba des jours yi ñu ne combat yi pousse nañ ko donc ay xaalis yi ngeen jëlee banque ñu délai ñu joxoon mais naka ngeen def ak yooyu pour gérer pour gérer yooyu noonu. ah waaw mais xam nga métti na gaa mais comme ku mel ni Ousin tey. am na ñu ma gën a méttile parce que journée yi tolloowuñu xam nga journée Fallou Ndiaye ak sama journée tolloowul journée jàmbaar tolloowul journée Ibulaay tolloowul kon ñooñu tey ñoo ma gën a méttile man sama journée bu tolloon ci benn 7 millions ñooñu ñaata million nañ toll bari na journée lépp Ouzin rek journée bi yëpp mën naa wax ni peut-être budget bi mën na nekk ci 7 millions wala ay 8 mais tey am na koo xam benn avance bu mbër kese 8 million a génne. Hmm. kon journée yi tolloo wuñ mais ak nu mu mënti demee rek maanaam xaalis xaalis la kenn ku ci nekk yaa xam ni nga def ba indi sa moyen pour organiser métti na hmm. parce que ñun dañ leen xaar pour organiser suñu journée jàll hmm. buñ ci amee tuuti recette ñu suñu tabaski neex mbër yi tamit noonu buñ ci amul dara tam lañ ci dugaloon mu génn ñu mën a préparer suñu fête mais après zéro mais loolu tamit bon dañuy xam ni noonu la noonu la demee. jusqu'à nouvel ordre comme après les fêtes nañu wax bon bu fête bi jàllee xëy na dinañ ci am tuuti renseignement yu tax ñu mën ko def. Mhm. léegi ñu ñëw ko cool yi làmb ji yaax naa fi ne nii cool yi bëri na mooy entre euh, mbër yi ginnaaw bi ñu defee seen audience pale bi ak léegi vraiment ma jàppoon ne audience bi sax xaj na bu ngeen jógee palais sax làmb dina xaw neex ngeen juboo affaire yu mel mais mu mel ni que da ngeen jógee rek mel ni da làmb dañ leen a dëdale coow li ñii coow fii ñii jëm fii ñii lan la. waaye nit ñi ñoo bëri wax rek pale bañ fa demee ba ñëw njëriñu làmb dong na fa président nañ fa wax président tam njëriñu làmb rek nañu tontu wax jee bari rek ñiy wax ñii dama yaakaar ne dañoo demuloon pale mais mën nga ñëw pale président ñëw nañu dama leen di dugal ci couverture maladie universelle ma fay jaare sax di gërëm sama président Moustapha Mbengue man Ouzin Production bokk naa si ñi nga xamante ni ñoo ko daan xeex di ci wax ba lii am tey. SBT partenaire la foofu couverture maladie universelle bi Moustapha Mbengue SBT partenaire la. di ci wax ba Gris Bordeaux recevoir Moustapha Mbengue arène national ministre motar ba ñëw toog jël ay engagement que dina jëm a fexe 20 millions pour dugal ko ci couverture maladie universelle xëy na loolu antuwul xëy na grand bi soo ko jëlee émission dina ko leeral ñuy dem ba kilifa ministre des sports woote. président Macky toog ne leen jëm leen ngeen ibbi assos kii maanaam ngeen créer association lutte yéen ñëpp ñu ñu ñu ñu assurer leen ci couverture maladie universelle ñu ne ñu ne dem pale bi wuuru na nekk nay kii président toog nañu créer leen euh, as créer leen association d'habitat képp koo xamante ni nekk nga mbër wala ñi nga xamante ñoo fi nekk amuñu kër ñu fexe ñun amee ci kër yi am ci terrain yi ñuy wax naan ay ay ay problème mu euh, waxuñu fa intérêt am président xool promoteur yi ne leen dinaa leen jox 500 millions. yéen promoteur waxtu ngeen ah pour ngeen appuyer leen ko ci seen liggéey ñu ne président waxul waxu waxu waxu làmb. te ci ayam ngeen amee arène nationale. président toog indi arène nationale loo xamante ni ñun ñoo ko moom. 32 milliards. 32 milliards gars yi toog wax ko gis nga nañ bàyyi caaxaan. Ah? sénégalais yi. dañ bàyyi caaxaan te dégg naa. man damaa jàpp ne bu ngeen demee palais waxtaanee fa làmb wax fa njëriñu làmb président compale leen ñëpp wax naa bu ngeen génnee vraiment dafa mel ni leen président jox lim leen jural dafa mel ni seen dem palais bi daal mënoon naa ñàkk ndax bu ngeen avant palais na jógee palais coow li bëri. sénégalais moo bëgg polémique wax moo bëgg dingat bu gis nga nit ni ko moon loo waxee kenn ku ci nekk am nga droit far fu la neex lii par par parparloo président moo woo axlu làmb. axlu lamb ba mu leen woowloo président Bira Sène toog bureau entité bu nekk ci làmb woo la ba ci yéen presse bi dem ngeen promoteur rek maanaam amateur ak amul ku mu bàyyi salle bu bañ fa nekkee keroog fee pale mais plus de sept cent et quelques personnes a fa nekkoon sept cent et quelques personnes lañ fa wax ña fa toog ñëpp dégg nañ li président wax dafa nekk naa la boole ma faleek boole ma defee lii am na ñoo xam jël nañ fa parole wax nañ ko mais am na ñoo xamante ni Gris Bordeaux mi ñuy wax nii dafa ñëw toog wax intérêt làmb Gris Bordeaux ba mu waxee ba pare dañ ne amul keneen warul wax parce que intérêt réew mi ne wax intérêt làmb. maanaam bi mu waxee waxaale na mbër waxaale promoteur waxaale manager waxaale ñëpp. waxaale réew mi. waxaale réew mi réew mi laa wax de. Gris Bordeaux da leen waxaaleel. bu fekkoon tey am na presse yoo xam dugg nañ fa. nañ xam li may wax bu baax. Mm-hmm. mais président bu tontoo li mu tontu lépp. est-ce que da cee wax fal leen ma wala boo bu ma continuer wala bu ma duggee xool na suñu intérêt xool na ne leen lii mooy seen problème seen jafe-jafe mooy feebar faju dinaa ko régler mu regle ko seen intérêt mooy problème mu kër ngeen am euh, coopérative habitat d'habitat toppatoo leen ko yéen waa Ahlou Lamb ma régler leen ko ana promoteur yi ñu ngi nii ah dinaa fexe am ci sama kees ma yëkkati ci sept cent cinq cent millions subventionné dinaa ko booleeg FONSIP mais dem leen après ngeen xool nuñ ko wax ñëw nañu arène national xaalis bi signé nañ ko signé wuñ ko mais loolu loolu intérêt intérêt làmb la indi na arène national teg gars yi wax nañ ko bëgg nañ am directeur arène nationale mais luñ ci bëggati lan lañ bëgg ku nekk bëgg a yor fii ñëw di wax loo xamante ni yow li ngay wax yow na intéressé gis nga man maas man damay politique mais sama liggéey damay liggéey ba pare moo moree politique dem fay politique yi nañu bàyyi di polémique yoo xamante ni dara leeru lañ ci promoteur bi politicien non man damay politique man maas ku ma xam-xam damay jàppale sama jigéen wallaahi bu bàyyi woon politique tey tey nee na fan ma daraat ah. bu bàyyi woon politique man yaakaar naa ni ah may bañ a wax ba pare sama waxu tey bañ a méngoog sama waxu suba mais li ma jot a jàpp ragal naax su bàyyi woon politique euh, waaw ma yóbbaale man moom laa parce que tey lu may def ci politique moom moo tax maa ngi moom nen na faat ma dataal lu may def rek parce que la ma ko waxoon ñaata at buy moom day politique mais saa yu gëstoo dina gis bu nekkee leneen lu politique nag mën na ma cee bañ a gis te bu ma ci woowee mu fekk ko si parce que yàlla moo ñu boole kon man damay politique. kon daal yow jàpp nii mënoon naa ñàkk. non mënoon naa ñàkk mais sénégalais xam lu mu bëgg ku ne waa góor tey bu la ni defaree dara dara nee ko merci beaucoup boo ko mënul wax merci ci français nga ne ko jërëjëf. mu xam ne lii naa gàtt na ku deful dara duñ la ko wax ku deful dara duñ ko wax président Macky Sall coolee fi nekk rek mais lim li li làmb am làmb mu leen jot a defal nii kan moo fi mës a nekk ku ku mës a am ci làmb ci ban président nee ma diw rek. mais làmb yi nii ci li baax na accord coow li làmb moo baaxoo wax làmb moom ak coow ñoo ànd. war koo sant gërëm di ko loolu mais xam nga rek politique moom fu mu dugg moom ay détails dugg fa politique fu mu dugg ay détails dugg foofu noonu. mais VIP VIP maanaam bu joxe waxee VIP mooy ténor yi nekk si kaw coole leen topp yëpp yëpp yëpp noo noo noo ko jàngate détail politique la Modou Lo mooy roi des arènes dëkk Parcelles loolu na yàlla dogal président la république bu wootee Modou bu ñëwee ay ñooñam dañ koy topp. Gris Bordeaux mooy président des lutteurs en activité su wootee ay ñooñom dañ koy topp bañ fa demee kenn waxu fa sa waxu poos kenn waxu fa sa intérêt bopp keroog ay kilifaa fa toog ci làmb Modou moo fa nekk Gris Bordeaux euh, Eumeu Sène booy Niang yaa ngi dégg la de Guiers Balla Gaye 2 Sa Thiès Zarko ñoo fa ne ñoo fa ne ba ñu ñëwee toog amul Gris Bordeaux moo se moo fi wax te li ma la wax léegi nii Gris Bordeaux moo wax intérêt làmb intérêt réew mi yemul kese ci làmb intérêt réew mi ne wax. te moo ne au contraire ñi génn ñëpp waxu dañu seen bopp seen bopp wax. waaw ñi génn dañoo xam li ñuy wax ñi génn di wax ni amuñu information amuñu ko man maa la wax lii. léegi ak fi réew mi toll la tey mooy solution pour pour làmb kon waat dox. waaw nga réew mi dafa tax taxaw si ñaari nit. entre Macky Sall day def troisième mandat Sonko ñi ngi ko jàpp problème foofu na nekk.